noo ngi am mbégte di ànd ak yéen di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaanal ko yàlla sunu boroom gën ko fee yàggal te gën a dolli ak wéram di ziyaare ak a ñaanal eh, jëwriñi boroom daarul moxti di sëriñ Basiiru Anta Ñang ibnu maam Thierno Ibrahim borom daarul Moxti mi nga xam ne tey jii moo fi wuutu ay magam euh, di sëriñ Abbas mi nga xam ne bërki démb la wuji borom bi subhaanahu wa taala ñaan sun borom dolli ko ngërëm ak yërmande ak tawféex waaye noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Seex Xaddi yal na yàlla dolli tawféexam ak yërmandeem ñaanal ko sëriñ Abdul Xuduus yàlla na yàlla dolli tawfee xam dolli yërmandeem waaye noonu lañ koy ñaanale eh, sëriñ Mouhamad Awa Balla Mbacke mi nga xam ne moo jëkk a wuutu maam Thierno Ibrahim di ñaanal seen doom ji nga xam ne àdduna bépp mën nañ koo seere muy ku yàgg a défendre yoon wi di ku bëgg ak bokk doonoon boroom xam-xam di nituk njariñ di sëriñ Mouhamadul Muxtaar ibnu Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Ibrahim borom daarul Mooti yal na yàlla dolli yërmandeem dolli tawféexam yàggal fi njaboot gi yëpp yi boobu ñu jaarale ko ci sëriñ Bachiru Mbàkke ibnu Cheikh Abdul Xudoos mi nga xam ne moo yore kàddu njabootu borom daarul moxti ci sëriñ eh, Bachiru Anta Ñang di koo xam ne jokk ak bokk ak rafetal ak eh, waxtu wu ne muy wane li sëriñ Tuubaa defal borom daarul moxti te mu doy sëkk muy sàmm loolu ku ne xam na ne sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xudoos liggéey na ci liggéey bu am solo yal na yàlla may ko ak wér yal yàlla jàmmal ko yal na yàlla dolli suturaam ak teraangaam noonu lañ koy ñaanale mbooloom njabootu boroom Daaru Muxti gépp mbokk yi xam nga ne fan yii ñu ngi dëgmal bis bu am solo ci taarix ci yoonu murit di bis boo xam ne Euh, bu amutoon dara du jar dara du jar Afrique waaye rawatina Sénégal euh, Serigne Touba gise gi mu gise woon ak rakkam ju baax jooju di maam Thierno Ibrahim borom Darou Mouhty ca Ndar ginnaaw bu sëriñ bi jógee ci géej gi ci 11 novembre yemoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru Soxbaan ñu gisee ca ndar ca fukki fan yi ak juróom bis boobu la àdduna bépp di ànd di ko fàttaliku te bis bu jar fàttaliku la ndax bisu wettuwaar la bisu ndam la bisu tawfeex la ki ki tax ñuy fàttaliku bis boobu ak ki sabab fàttaliku gi mu di diggante sëriñ tubaa ak borom Darou Mouhty xam ngeen ne boroom borom Darou Mouhty hmm, ci général yi sëñ Tuubaa yi ci la bokk wala bokk sax mën naa ne mooy généralu armée bi far euh, ci ci boo ko dee jàngat ci digganteem ak sëriñ Touba dama ciy ñëw rek benn kàddu bu gàtt te kàddu boobu mënees na koo jàngat léppi àdduna ak léppi àllaaxira na ci mooy li sëñ Touba bokk ak maam Thierno Ibrahima borom Darou Mouhty muy ndey ak baay ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax ñoom ñaar ñëpp maam ma xaray may seen maam ci ndey di seen maam ci baay seen ñaari maam yi ak seen ñaari yaay yi bokk seen ñaari yaay yi ñoo bokk ndey seen ñaari baay yi seen benn ñu bokk benn baay. kon lépp lu maam Thierno li mu bokk ak sëñ Touba moo di ak bokk mooy rakkam ji topp ci moom rek mënees na koo jàppe waaye yëmut ci taw feex jooju muy rakk ji topp ci moom sëñ tubaa moo waxal boppam ne Thierno maa ko wax baa ba fi mu yeexale amul wenn arafu maam Thierno jàng waat ci keneen ku dut sëñ Touba xam-xamub maam Thierno lu loo ko naw naw rek ci biir xam-xamub sëñ Touba la tàbbi soo demee ba jàppale ne maam Thierno xamul dara kon jàppal na sëñ bi xamul dara maam Thierno moom sëñ bee sëñ bee sutteeku ci moom ci wàllu xam-xam sutteeku ci moom ci wàllu xam te loolu euh, feeñal na ko ci ay wax yu baree bari ci nettali sëriñ bi ak ñàkk jotam daana tax su dee jàngal maam Thierno bindu xam-xam bu ko jàngalee ñetti bind ca téere ba danaan ko li ci des. na ko mbokk laabiire mbokkam nga xam day mel ni dañ koo sol li des ci déggu téere bi waaye ku ne xam ne maam Thierno fi mu toll woon ci xam-xam ah, mm, ku ne xam ne ne coobaree borom bi subhaanahu wa taala la ak jëfi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu kon doy na ci wàllu xam-xam ci maam Thierno nu xam-xamu maam Thierno mën a toll ak ragal yàllaa ma koy ëpp. ndax sëriñ bee ko yaral boppam itam kon lépp lu sëñ bi mas di moytundiku maam Thierno musu faa sëñ Tuubaa di moytundiku rek maam Thierno musu caa jaar ndax amut bis bu moom boppam kon na jàpp ne sëriñ Tuubaa ko tarbiyaal boppam ci njëlbeen ba mu xëy doon bi jaaw ba mu xëy bi jaaw amut genn bis bu mu maas bu Thierno mas xëy ci coobare boppam fu sëñ Tuubaa mas di jëmit ci seenu ndaw ñoo ko ànd dañuy ànd di jaay seen téere alxuraan yi ñoo bokkoon di ànd. ba ñuy ànd dem ndar ñoo bokkoon ànd ba ñuy ànd dem gànnaar ñoo bokkoon ci gànnaar ju njëkk ji nag laay wax kon fu sëñ tubaa Massa dox ci ak njëlbéenam rek jàpp na ci loxo maam Thierno wamataale ko kon maam Thierno li sëñ Touba naan deenaa ba dekki maam Thierno deena ba dekki loolu moo tax seen mbir jaxasoo ba neexatut a xàmmee kon lépp luy luy luy wàllu ragal yàlla ci maam Thierno rek dee ko xool ci sëriñ bi. Euh, loolu dana feeñ ci waxi maam Thierno Ibrahim borom Daarul Mooti li muy faral di wax ne wax nañ na sëñ Tuubaa mas na koo laaj na ko Thierno sans borom day may na la tey jii loo gën a bëgg mu defal la ko mu ne ko kon dey bokk na ci li ma gën a bëgg mooy lépp lu mu dogal na ma neex bokk yi nañ seetaat loolu ab jaam li feeg ak njaamam di mën a complété mooy day nangul sang ba ca lu mu dogal ci moom mu neex ko. muy bàyyi ak tànn ci boppam te luñ la tànnal mu dëppoo sa bànneex maam na dafa mujjoon amatut bànneex lu lu yàlla dogal ci jëmmam nag ak ci njabootam la yemale te loolu yàlla natt na ko ci ay yoon waaye day gis ne maam na ci biir baatu alhamdulillahi rabbil alamin rek ci lay wéy loolu fu ko maam nu jëlee da ko nàmpe ci Serigne Touba Serigne Touba mi nga xam ne nee na su ma yàlla xañee danaa ko muñ su ma joxee danaa ko sant. su ma xañee danaa ko sant su ma joxee danaa ko sant loolu maam Thierno ci sëñ Tuubaa la ko nàmpe kon manes naa jàpp ne lépp lu jëm ci wàllu nangu dogalub yàlla maam Thierno Ibrahim borom Daaru ti exemple la ci la ci des nag mu jëm ci wàllu liggéey yaakaar naa ne réew mi waras naa jàngataat 42 kilomètres ñeent fukki kilomètres ak ñaar maam Thierno gor ko ci loxol boppam te boobu jamono yenn la ko gor jamono joo xam ne réew mi neexut ay 1915 1916 1917 jëm 1900 yooyu la maam Thierno gor àll bu toll ne daarul mooti mënoon naa doglu rek ay tool jëmmi biir daaru moxti doyoon na ay tool waaye li ngay xam njàmbaaru maam Thierno xoolal ni maam Thierno jaboote ni maam Thierno jaboote macha allah. waaye ci biiru njabootam ñëpp ci biir 45 kilomètres yooyu lañ nekk kenn góoru génnut ñoom ñëpp kenn ku nekk am nga loo xam ne ba fii ñu toll mënoo koo dëkke mënoo koo bay te moom da koo dëkkee woon daan ko liggéey loolu doy na ak njàmbaar benn loxo bu liggéeyal mbooloo ndax loolu histoire nett léegun nañu ku jàmbaaree ne maam Thierno Ibrahima borom Daaru Muxti boo demee dëkki Daaru Muxti yi ngay dégg yëpp maam Thierno na ko goroon te goru ko bàyyi goru ko tëral da ko goral ba noppi def fa ay daara loolu moo ko mayoon bi demee ba réew mi ñàkk dund tubaab yi ñëw ci moom mu génn ay sàq jox leen ko ngir ñu dundale ko réew mi kon bu dee ci wàllu njàmbaar ci liggéey Thierno exemple la ci bu dee ci wàllu fit nag fit nag danga naan Thierno kat moom fitam bii mu yor da ko doon na ci Seydina Aliyu wala da ko doon na ci Seydina Omar wala fit wi daal fan la ko maam Thierno mën a jëlee. fan la maam Thierno mën a jële fitam wi damay delluwaat ci wax ji ginnaaw tuuti nga delluwaat jàngat bi sëriñ Touba di yónni maam Thierno Ibrahim muy dem Ndar gone gu toll ci e, fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi ñeen fukki at la te mage ma mage na maam Thierno fukki at ak juróom kon gone ñaar fukki at ak juróom lay doon dib dongo daara dolli ci. ñu yónni la ci président la république ñu yónni la ci président la république noonu laa ko mën a misaale nga jóge fii ak sa col dem directement ca pale ba romb garde corps yi romb gobi yi romb général yi jàkkaarloo ak président la république taxaw mu wóor a ne fii mel na yow rek yaa fi ne nga tàllal ko sa loxo boobu muy loxob dongob daara ab bataaxel na ci nga am fitu tontanteeg moom am fitu tontanteeg moom wax ko li ñu la yónni lettre bii daal ki ma ko jox daf ma ne sa loxo ak loxol kooka soo tàllalul sa ndijoor bi duma ci teg lettre bi personnalité maam fa hayzuma taxaf ilaahakal ahad yaxaf ko min xaw xaw fi ko kulla ahad maam Thierno da ko jëfandikoo baat boobu loolu moo tax suñ borom may ko ak wegeel ci biir tubaab yi ñoo xam ne gone gii du gone ak neen mais waaye maam Thierno yemut ci loolu ci aw fitam maam Thierno yaakaar ku dégg bi muy gor daarul mooti lu tax foo dégg daarul mooti ku jóg nga dégg balu fetal yay tàkk balu fetal moom ci xare rek lay tàkk lu ko sabab njàmbaaru maam Cerno Ibrahim borom daarul mooti fekk ab àll di ko gor pël yi ne la doo ko gor mu ne leen di naan ko gor Ibrahim la tudd Ibrahim waaye gis nga wax nañ ne pël yi daanañ gase maam Thierno ay reen di ko gase ay reen bu ñu liggéeyee ba tifli ci reen bi ba war a dog reen bi bu ñu nee tipp mu doon jinax daw ñu ne Thierno gasi Thierno dem na Thierno gasi maam Thierno fas nañ ko ci taati garab yi gase nañ ko ay reen waaye lu mu ci mën a doon bu dara desul lu dul dog rek boo ne tipp jinax naan pëccët dem nga xam ne kii mënaloo ko dara ci kaaraangeel yàlla la maam Thierno tàbbi woon waaye yow fitam di fit u rëy waaye yëmut ci loolu mu doon nag ku gëm sëñ tubaa te bëgg sëñ tubaa te wóolu ko moo taxoon mu daan wax ne ceerno day noppam bii bëgguk sëñ tubaa du ci tab bi te ceerno jëfu ko lu tabbi ci noppub ceerno bii tey bëgguk sëñ tubaa jëfi ceerno dana ko matale kooku yaakaar naa ne bu ñuy seet nitu yàlla di seet jàmbaar ba noppi nag loolu mu def lépp ci biiru taalibeem mu ne daal man ak taalibe gu ma mën a am ak lu ma bëgg-bëgg sëñ tubaa sama sama màndargam bëgg sëñ tubaa mi ngi feeyee ci ma matalee li ma sëñ tubaa digaloon lan la ma sëñ tubaa digaloon tegal sa tànk bii ci siraatal mustaqim tey sukkandikoo nag ci xaqiqatul munawara moo tax maam Thierno mbirum jaamu yàlla maanaam ni mu ci meloon dalay yéem waaye jaamu wut yàlla nag ngir bëgg benn intérêt ci àdduna day jaamu yàlla ngir xam ne jaamub yàlla la bu ko yàlla bind di ko jaamuloo di jaamub yàlla boo xam ne jëwriñam da koo joxe na ko jaamu jël yàlla muy jaamu yàlla ngir loolu waaye ak bëggam ci sëñ Tuubaa la yem kenn musta dégg maam Thierno sëñ Tuubaa ne ko loo gën a bëgg mu koy wax cërub ëllëg déedéet lu koy gën a bëgg loo yàlla ak lu ko koy gën a toppaloo moom ci boppam kon maam Thierno ak bëggam lépp daa jeexoon ci sëñ Tuubaa mu wëkkiru nag ci yàlla te ko jaamu. sun borom nag fay na ko fay na borom daarul moxti yaakaar naa ne ku xool njabootam gi damay damay indi benn xisa rek bu ñu nettali ci sëriñ Mouhamadou Awa Balla ba soxna moom mi nekkee daarul moxti te yàlla dogal nawet jot mu génneel soxna moom yi muy doomi sëñ Tuubaa aw jiwam génne aw jiwam yabal dongo yi na leen dem leen ngeen ji jaadu na nag xelit nangu na ko dongo yi nag kon na njëkke tool sëñ Mudu aw Balla su buuree ñu teg ci tool soxna moom yi te ku laajoon soxna moom it loolu lay digal waaye bi dongo yi demee ba wàcc ñëw ci borom daarul moti sëriñ Mouhamed aw Balla lum leen laaj fu ngeen xëy ñu ne ko dañoo xëyoon ca tool bu mag ba moo leen man ban mooy tool bu mag ba ñu ne ko xanaa sa tool mu ne doomi sëñ Tuubaa ne fi te baayam tax ñëpp mage ngeen naan ma sa tool bi mooy tool bu mag bi tool bu mag boobee def naa ko addiyee soxna moom yi nii te ngeen féetalee ma tool bu ndaw ba yaakaar naa ne pas-pas ci sëñ Tuubaa mënees na ko jàng ci sëriñ mu daaw a bàll te mën nañoo bokk bàyyi ñoom ñaar te moo ko mag de ba noppi di sëriñam waaye gis ngeen moom gisutoon loola lim gisoon mooy Serigne Touba loolu mooy feeñ nag ci lépp njabootu euh, borom Darou Mouhty gis ngeen déclaration bu mujj bi Serigne Bassirou Anta Niang def xam ne ne sëñ Mountakha kër gi yaa ko moom sabaat lañ fi déglu ndax kërug Serigne Touba la Thierno moom du def lu weer su topp ci ginnaaw sëñ Touba ku fi nekkal Thierno it doo def lu weesu topp ci ginnaaw ki fi nekkal sëñ Touba yaakaar naa ne bokk yi loolu buñ ci wéyee dara du yàqu. waaye gis ngeen Cheikh mun taxa mën a joxe cër ak xam ne yoon wi dara du ci yàqoo ci moom kere ba muy dem Daarul Muxti xam ne ne ñam fay fekk ñam fay fekk maam noo leen jur ni ni ko sëñ Basiiru jure maam Thierno moo jur sëñ Basiiru mu xam ne sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mii bàyyi la ci moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ne leen dara du yàqoo ci man ba muy dem dem na ngir xalif général de Mouride waaye dem na nag na wane ne doom mooy ñëw ci biir kër baayam loolu du du xañe sab cër yaakaar naa ne euh, Serigne Touba ay baayam yàgg nañ ko raamal ay baayam jébbalu nañ ci moom di ko raamal kon bu ñu demee ba bàyyi di raamal doom ay du asaar ci sëñ Mountakha du gàcce ci sëñ Bassirou Anta Niang ndax loolu yoon wee ko doxe yaakaar naa ne loolu. yoon wi mën nañ cee jànge lu baree bare kon bis a ngi noonu bu màgg boo xam ne su mbégte la ba noppi nag bàyyi ko ci kàddug Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké di dajab sëriñ Touba ak Thierno Ibrahim borom Darou Mouhty maam Thierno Serigne Touba batale woon ko lu bari mu liggéeyal ko yit nag lu bari liggéeyal ko ci ak njabootam liggéeyal ko ci tariixa bi liggéeyal ko ci seex si liggéey boo xam ne ba ba àddunay tukki dootu fay kon. yaakaar naa ne bu bisam ñëwee du bisub daaru mooti bisub njabootu lislaam gépp njabootu lislaam a ko bokk ndax nitug yàlla di jaamu yàlla bu doon jaamu yàlla tegoon tànkam ci siraatal mustaqim di dunde sunnas yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo moo am bis kon lislaam bépp am bis xaasatan nag yoonu murit moom ko walla boog yoonu murit organise ko ndax maam Thierno Ibrahim boroom Darou Mouhty dañ naan waa Darou Salaam moomuñu ko kenn ku ko ñemee wax amut dañ naan ndax kër sëñ ma Massamba moomuñu ko làmmiñu murit du ko yëkkati ndax dañ naan kër sëñ Modou aw Balla kër sëñ Balla Coro moomuñu ko déedéet njabootug sëñ Mbacke Mor Anta Sali gi njabootug maam Maharam gi ñoo bokk benn wàcc ca Darou Mouhty ñoo yem ca bis ba kon nag bis la boo xam ne ndamul yoonu murit rekk la ndamul lislaam la. yàlla nañu yàlla fayal borom daarul moxti yàlla fayal njabootu boroom daarul moxti yàlla yàlla indi tawféex ak jàmm ak sutura ak teraanga ci Sénégal jaarale ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal mu di fukki fan ak juróom ci weeru Chaabaan e, seen mbokk taalibe Fallou Galass moo nekkoon ci micro bi feggoon ak alaaji Fallou Sow ci wàllu caméra bi ci seen seen Assalaamy TV ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di balo àq ñëpp di leen baal àq di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi suñu boroom gën a yàggal gën a dolli ak wéram yàggal fi mbooleem njabootug borom Daarul Muxti gépp yàggal fi mbooleem njabootug lislaam gépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.